nga ne ko du mën a yow man ak sa mag la loolu laa ko wax nee naa naa ko nekkul nekkul mën ak yow maag petit loo la léegi nag maa ngi si woo waa yëmbal gépp buun malika benn baraak ñëpp bàyyiwuma kenn ñoom ñëpp maa leen woo le premier janvier say jàmbaar am di woo waa Télémarin say jàmbaar dégg ma la wax man nee naa la man sama bët fi ma ko waxoon man ah. teguma ko si poul poul kii bi poul si poul abi laa ko bu soobee roi des arènes dégg lu ma la wax rakku petit lo dégg lu ma la wax man man sama bët maa ngi teg ñoom ñàkk jëriñu mais du booy yooyu Modou waaw mu moom mi maa si woo ñëpp nag di si woo waa yembal waa télé mané di si woo ñëpp bàyyiwuma kenn maa si woo ñëpp ayca kontaan yow tey ma si kaay xaadim xoolal ma keneen ku de ziar mu daan ta lépp jaam lépp jaam kay nice tirage nañ de waaw kay waaw am ndaamale ki ndaamale ki dëkk bun bun petit ñaa waaw man moom la de waaw man ñëpp laa préparé woon man dama demul jëloon décision ku ma am baax ñëpp laa préparé mais nag yéen coowaloo woon ngeen fi avant kala bi fii ci stade bi sama kanam waaw surtout loolu parce que dañ doon dox suñ combat muy daw waaw suñ combat yi yoon yoon muy daw mais saa yala sedd na la nangu yàlla defoon na ne ñooy bëree far force waaw ah, waaw sareet sareet ak métro kii la métro waaw ah, sareet ak métro la wala nga ne teem ak sax sareet rek saa yattaa yeto nga am de day coqi coqi man damay daw jaajëf tey Maxi Petit Niang kaay Petit Niang kaay ah ko fontoo de nee la wax de ku noppi rek jàpp nga ne yaa man salaamaaleykum saa yatta maaleykum salaam mu ñu leen fay Modou Sarr ñëpp di màggal ñëpp waaw di nuyu waa Gaston production waa Kewel ñu ngi bëggee waaw loo bëgg a leneen tirage am na de waaw di ñaan jàmm ak salaam rek di ñaan yàlla ñu teem ak salaam te max. waaw te max la am mbër mi champion bi. te bi day daw de. waaw ñu ngi koy ñaanal jàmm rek. gis nañ fi leneen te max du dara loolu neex naa yàq. météo de ànd ba neexul. waaw problème en tout man daal te max ak leneen la ci jëm ku ñëw ma yàq la. waaw ku ñëw ma yàq la. premier janvier ñëw na ba pare de. waaw loolu ginnaaw suba la ñu ngi ñaan yàlla yàlla may ñu jàmm ak salaam ak tawfeex ak taysir. waaw loolu la ñuy ñaan de. waaw ñu ngi ñaanal jàmm ñëpp di woo waa Pound ñëpp di wax ñëpp nañ ñëw le premier janvier soutenir ñu yàlla may ñu ndam ci kàttanu yàlla ak mbaaxam incha allah ayca wan ma bébé guy xaaral ma woo say jàmbaar rek Ibou dugal leen wan ma bébé ziar yaa ngi en direct Gaston Production tirage bi nag jib na ambourage bu Pikine nga am ambourage bu Pikine nga am taxaw na fi wax say say réaction la loolu neex na dama doon ñaan yàlla mu doon waaw gars yi dañoo jël favori yëpp jox jox ko Ambroise ci laa ñu njëkk la koo jox. waaw yàlla suñu borom doon ñaan yàlla jaar maanaam yàlla suñu borom njëkk ma koo jox ma maanaam da koo bëgg a wone. barki maam Cheikh Anta moo doon daal. waaw. jaratul di bëri ndax maanaam lu war a am la. ok. dañu ay waaw. ana bébé guy gi.

jaajëf jaajëf kooku mooy Ibou Bébé Gouy Gui tey ñëwoon nga CNG bi nga ñëwee da ngaa entraîné ji ñëw di nelaw fii yëpp xam naa ne entraînement yi métti na maa ngi lay. nelaw yoo doyul rek. yaa ma a xam. alléluia alléluia alléluia. maa ñaan si Yesu Christa di pré si Mariam bu selam yi di ñaanal sama waajur du jigéen yàlla na ko fi yàlla ba si kanam di ñaanal sama waajur du góor fi mu tëj yàlla na suuf si oyof si kawam. di nuyu monde entier yëpp di nuyuwaat monde entier yëpp nuyu diaspora di nuyu waa géejuwaay waaye bi ma jur ñu ñaan waa géejuwaay bu baax a baax a baax a baax a baax mm. di ñaanal ñi nga xamante ne ñu ngi tëdd hôpital yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ñi caabi féete ginnaaw yàlla na suñu borom génnee foofu mm. ñaanal ñëpp jàmm yéen site internet yi ak gars maa leen di bëggee bàyyiwuma kenn dégg naa tirage bi am na de ko am waaw grand frère bi laa am mooy jëriñu <laughs> am nga poson de waaw loolu yàgg naa ko daan sa mag mbaytin yàgg naa ko dégg yàgg naa ko dégg ba mbaytin di bëri ñëw ma stade ndax boobu aw sa licence eh. waaw wax dëgg fa yàlla dugguma sax ci lamb jamono première défaite u mbaytin waaw première défaite mbaytin ba muy bëreeg mbaytin ak Aziz Pambay laa ñëw stade toog si kaw tribune di seetaan te boobu amaguma licence tey lamb dox ba dajale leen boole leen ci tournoi nga am ko premier tour waaw comme ni mu ko waxee ni nga ko nu mu yombee nii noonu laa koy daane si kàttum yàlla suñu ah. borom fii la génn nag firi yuuxu fii yëpp na ñii yëngaluñ ma. comme yooyu muy def amul problème yàgg na ko wax mais yéen ñiy téye micro taalal ma micro fii yàgg ngeen xam ni que Bébé Gouy Gui musul bëre combat bu yomb te bu ci biir géew yàgg naa leen wax yàgg-yàgg damay téye làmb waay dama koy na ci galaa bi. jarul sax koy firnde ci galaa damay ah. finaalu mu neex leen ci kàttum yàlla suñu borom damay finaalu premier tour fa nga dal fa nga dal ko bu du loon moom sax man dama dama entraîné pour ku mun di ñëw rek ma gérer la amul problème ah déggoo lu ma la xanaa ku ñëw ma ku ñëw mu mujjee mu mujjee teel a ñëw dama koy daan ci kàttum yàlla suñu borom lu ma gëm la te damaa nekk xale di entraîné trois séances laay liggéey ma am combat ñàkk am combat comme ñàkk jëriñ bu ma tere dem su ma naree liggéey benn séance benn séance wala deux séances yàlla na ñàkk jëriñ am ndam sama kaw wool say mbokk waaw maa ngi woo waa Guinée Bissau di waat waa Guinée Bissau bu baax waa Casamance di sama mbokk njaago yi ba bukkayu ba bukk Guinée Bissau tuuni mais si si nañ jàkku nji Lorenzo njëkk a royandoo ko jéndu kuma ma neeju tournant li meeku ma ma kamam ba ñamba wanci te ba bakir du wanu lolong anju ku jendu tu na siya buku na ndey ni nach ni nach ni reng pengkasa ni jurarin panji ganyaru kami enje buko juga sen jinan jafu ma ne man la doomu Guinée Bissau man la doomu Kayu. voilà di ne képp koo xamante ne da nga daan jëflante ak suma papa. voilà maa ngi lay bi nga taxaw ma bu fekkente ne croix nga yor chapelet nga yor. di si ñaan nga ñaanal bu fekkente ne tour nga yor di si ñaan. nga ñaanal ma. man la doomu buur bi biir Guinée man la doomu roi bi taxaw naa pour jël galaa bi te woo naa képp koo xamante ne da nga daan jëflante ak suma papa rek nga taxaw ma jàppale ma. di woo waa waa famille Silva di woo ñi nga xamante ne nag ñu ngi may jàppale si combat bi. Mhm. DG Idrissa Idrissa Kebe bu États-Unis maa lay woo si combat bi bu baax a baax baax a baax. sama doomu ndey Léo Luxembourg di la ne combat bi le janvier lamb ji sa lamb la suma papa waa rent de cas père Alain. France la ne su ma la gisul gisuma kenn ñëwal si lamb ji suma papa Dieye seen maa lay woo nga taxaw ma si combat bi di woo jaxaay bi yëpp yëpp yëpp yëpp cee Yacine di la jaale waale sa sa waajur du jigéen ji génn àdduna temps yi passé yàggu dara ak ñi nga xamante ne yàlla dogal na ren ñàkk nañ seen mbakkan biir jaxaay yàlla na suñu borom. suuf ooy seen bu baax a baax a baax a baax di leen di nuyuwaat di leen nuyuwaat bu baax di nuyu suma rakk bi ma àndal. waaw waaw. ok.

adduna yëpp di bëggee allah incha allah mbokk yi mi ngi noonu tirage bi jib na incha allahu rabbi le premier janvier xaadim ambourage mooy daje ak Ibo Kër Mbay Fall ci poule B bi ba tey ci poule B bi say jàmbaar bu jàmbaar Wrestling Academy mooy daje ak ki mooy bébé taala bu yëmbal mare ci poule A Potignan bu école de l'Ile mbay Mbaye mooy daje ak euh, Tmax bu Ikiri Grand Yoff. beneen écurie bi la nekk de. per bu bees la. tur bi la écurie per Ablaye. Ablaye Dieng xuma Ablaye Dieng. boobu yaraax la nekk de. Ablaye Tmax bu Grand Yoff ba tey euh, beneen bi aussi tamit xale bi nga xam mooy ñàkk jariñu bu caaroy mbooloo mooy daje ak bébé guy gi bu école de lutte Mor Fadam loolu la premier janvier lay doon grand combat Boy Niang moo koy bëri ak Reug Reug spécial bi Thiatou Daouda Fall moo koy bëri ak Amaneex beneen bi ci topp général Malick ak Forza am na yeneen combat ci gri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 tey le 22 décembre ca arène nationale ñu war ci ànd nag ak Ndiaye production